déet déet déet déet moo ne Assane. yaa ngi si jàmm. nakaw. waaw maa ngi si jàmm. mais na mu naal de. maa la raw ma frère yow nag maa yaa ngi si jàmm. nga kii Sénégal yi. kii moo jël Viviane yóbbu ko Italie mu jël ñetti salle yi gën a rëy foofu. mais grand Assane mais mais grand Assane luy luy mais grand am nga xaalis de. non ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax c' est vrai que. Mhm. saa lu jël dafa méngoo ak artiste bi foo war a tëgg. muy la queen de la musique sénégalaise. xamee ko si Viviane. nekk ndaanaan mag nekk une star. actuellement nii ñu ngi koy félicité te tamit mi ngi Akigali Akigali. Mhm. Rwanda. Mhm, waaw ah, mooy affaire kii une nomination yi mhm. vraiment une fierté hein, euh, pour toute la communauté sénégalaise. Mhm. Euh, Viviane big up man content nañ si yow. Uh-huh. mais mais ñetti yi Viviane ko ñetti ñu war non mais une forte une forte communauté sénégalaise. Mhm. bo parce que ñu nekk Italie xam nañu lu fa nekk parce que mm-hmm. Vicenza dafa bokk ci Triveneto bi mm-hmm. bon dëkk yi ko wër yëpp am na une forte communauté sénégalaise yi fa nekk nga mm-hmm. jël euh, ay Bassano del Grappa Arsignano Padova Mestre Treviso zone zone ah, Verona aussi xam nga nga jël ay Pordenone dem ko junne ci kaw ñoom ñëpp xam nga ñu ngi leen di xaar ci ci Vicenza bi mais gars yi sénégalais yi ñu ñu xool ñu xool première vidéo première concert bi fa Viviane war a def déglu leen bu baax. Eh, nangul ko ko force la. DJ Hassan Promotion présente Viviane et le Jolof Band en live le samedi 23 décembre 2023 à partir de 22h au Théâtre Communal de Vicenza. La star Viviane, la diva Viviane au Théâtre Communal de Vicenza. Tapis rouge bourré Vicenza Viviane Yo Yen nag ngeen daal di yegsi sénégalaises sénégalais yop bu ko rouge bi Sénégal ce sera sous le patronage de Monsieur Ella Gignan, Vicenza, Monsieur Pape Doudou Vicenza, invité d'honneur, Monsieur Moussa Ndiaye, PDG de la société WorldNet Agency de Milan, Madame Mamissar, Padova, Monsieur Ousmane Djen, Padova, Monsieur Malessamb, Vicenza, Monsieur Sali Diara, Vicenza, DJ Boups ngay am en direct Fiti Sénégal ñuy World sénégalais yu Vicenza Bassano del Grappa Padova, Castelfranco Veneto, Venezia, Mestre, Treviso, Verona, Brescia, Trento, Udine. La grande soirée avec Viviane et le Jollof Band en live au Théâtre Communal le samedi 23 décembre à partir de 22h. Salle Feteli, les Sénégalais d'Italie à France toog de Boulet dëkk Entrée unique 50 euros. Information Machikere 327 42 99 001 328 26 53 014 388 78 09 274 sponsor officiel Westate Saytech Woodnet Agency Yobal Expedition SRL Milan de Ousmane Diop Sucurisaf euh, pub baa Nono Les Boussoirs Les mais l'angle l'angle lan c'est non mais dañ si jóg rek pour bégal sénégalais mhm. parce que boo xoolee que. Mhm. xam nga ñun mun naa wax ne que liggéey. Mhm. ak kër ga. rek. donc moment la boo xam ne nag euh, sunu jigéen. star planétaire Viviane. mun nañu war na mun na war na ñëw bégal askan wi. te incha allah. mu euh, ngi koy pare. mi ngi koy pare la la diva. Mhm. la grande diva Viviane mi ngi koy préparé bu baax a baax a ah. baax. nga jóge si première date boobu nga demaat si deuxième date deuxième date bi lu la. ah mbay deuxième date bi. boo mhm. xoolee moy le grand bal de Milan. ah boobu grand bobo, moom dama si dem ah, le grand bal de Milan. ñu mhm. koy defee salle bi ñuy wax Malpensa Fiere. nekk ca Busto Arsizio. mais euh, guddi googu lu re rëy dañu ko bokk ak ak benn association bi ñuy wax GPM solidarité 2000 ans mhm. jàppal tur boobu mhm. association GPM solidarité 2000 Milan. Mhm. waa GP yi daal ñoo ko kii. non du waa GP. ah du GP. bii dafa association moo tudd association. GPM. solidarité de Milan. du bamtuwaat ko. association GPM solidarité de Milan. dafa nekk station boo xam ne ne que. Mhm. mën naa wax ne dañuy yëngu trop social. Mhm. ndaxte ñoom am na ay. Mhm. am nañu ay affaire yu baax yoo xam ne def nañ ko. def nañ ko def nañ ko. am na ay euh, euh, mën naa wax ne ay action noble et généreuse yu bari yoo xam ne def nañ ko fii au niveau du Sénégal tout récemment rek notre frère. Kabir Samb. ma koy nuyoo passage ak euh, ak soxnaam ñu xamee ko si madame Samb Amika. Mm-hmm. ak ay nawlem ñu mel ni comme la présidente Magata euh, la présidente de Fatna naa encore présidente association GPM de Milan ñëw au mm-hmm. Sénégal daf fi ay vraiment daf fi ay action yu yu noble yu mm-hmm. baax sax jëmee ko si askanu Sénégal sénégalais donc ma leen nuyu passage donc guddi googu lu ñu ñooñu lañ ko bokal associé ak quoi GPM Solidarité de Milan ñu organiser soirée ndaxte boo xoolee ne que événement la maanaam bés bu mag la hmm. te lu kenn mën ñaar moo ko dàq hmm. dëgg hmm. Ah, mbokk yi xool leen saal bi euh, xool fu fi Viviane di tëggaat xool leen eh, nangul ko ko force la DJ Hassan Promotion collaboration avec l'association sénégalaise GPM de Milan présente le Grand Bal de Milan. Milan tient son Grand Bal avec Viviane et le Jollof Band le dimanche 24 décembre. Fun Laydon, Malpensa Fiere, de Busto Asioso à Milan, entre 50 euros, VIP 100 euros, am tapis rouge pour B, Nous l'al tapis rouge bi, sénégalais Andak di rouge bi caméra bi ah, le dimanche 24 décembre du yomb invité d'honneur madame Samba Amika Boutique Mamel Dakar monsieur Moussa Ndiaye PDG de société Woodnet Agency Milan sous le patronage de son excellence le consul de Milan monsieur Mamadou Lamine Diouf madame Ndiaye Nathalie, Komo madame Aïssatou Badji Novara madame Sophie Jatanyay Milan monsieur Ousmane Diop PDG Yobal Expedition Milan Madame Maimouna Diop restaurant db 221 Via Palmanova Milan Madame Ndai Galarate Madame Aïda Mbaye Brescia Madame Khadissa Sow Verseli Vercelli Milano Varese Bergamo Pavia Lodi Lecco Como Torino Novara Vercelli Genova Pisa Livorno Bologna sénégalais Parma Suisse Luxembourg Paris. Sponsor officiel, Amica Boutique Mamel Dakar, Wodnet Agency Milan, CETEC Sénégal, Safitalia SRL, Securisaf SRL, Yobal Expedition de Job Ousmane Milan, à le 24 décembre du Yomb, Viviane et le Jollof Band, Tapis Rouge Wa Milan, Wa Italie, Narna Nerdal. ayca Assane gis ngeen saal bi gars yi gis nañ saal bi saal bi rëy na est-ce que xalaat nga ni euh, saal bi li mu mais décembre gars yi foofu day sedd est-ce que yi duñu bàyyi duñu bàyyi xalaat nga ni gars yi duñu bàyyi euh, foofu ñëw Sénégal. non mais xam nga aussi am na suñuy mbokk yu ñëw Sénégal. Mhm. seet si seen seet si seen famille. Mhm. c'est c'est tout à fait normal. Mhm. waaye tamit am na ñoo xamante ne dañuy toog dégg. et comme ni nga ko waxee sànq saal bi. saal bi yaatu na. ma si yokk dara rek lu am mm-hmm. solo mm-hmm. ñun soirée bi dafay dem ba quatre heures du matin mm-hmm. soirée bi le grand bal de Milan dafay dem ba quatre heures du matin incha allah donc nag suma gars yi préparé leen ko xam naa rek euh, nga may ma rek xam naa ne aussi am na lu ma si bëgg a yokk billets yi cinquante euros la VIP cent euros On aussi ay super VIP. Mhm. donc les gars leen jënd bi tam leen leen dem na benn link pour les billets. de mhm. euh, soirée tamit soirée aussi mhm. notre frère Madiké Diop. que ko soxla billet mu nga euh, ma fille Awa Samba, madame Jai, aussi moom tamit dafay famille, ngi bokk na si ji ñi jaay mhm. ak tamit euh, notre sœur euh, Anta Thiam pas Padova mhm. donc nous tamit aussi beaucoup na si Jai jaay au niveau du week-end la mooy soirée bi nga xam ne mooy le 23 décembre mhm. donc le grand bal de Milan billets mon mën ngeen ko amee si le président de la station euh, GPM de Milan waaw mhm. mu ngi amee tamit aussi si monsieur Samb mhm. bokk si association GPM de Milan mhm. donc mu ngi amee aussi tamit restaurant euh, le Babab, à Milan bi euh, nga xam ne notre sœur Madeleine Camara mooy euh, directeur général bi moo ko moom mu ngi tamit yi toujours à Milan restaurant Divi 221 nekk via Palmonova, Milan ak notre notre sœur euh, madame Diop Maymouna moom moom place boobu aussi tamit euh, notre sœur Ndeye Diop nekk am benn négoce bu ñu wax waa sol bu Galaraate moom tamit dafay jaay billets yi moom sax d'ailleurs sax commencé na jaay ay billets mhm. ah donc euh, c'est ça loolu man tamit aussi damay jaay ay billets mhm. ah ku si soxla rek boo ma oowee rek ma jox la jaay la ay billets. Mhm. mais numéro yi nañ ko dugal foofu ngir ko gis si suuf incha allah muy daw. numéro billet yi euh, aca lan moo tax nga tàmmu Viviane Kassé mu joué la trois dates pourtant yeneen du woykat yee ngi fii lan moo tax loolu non mais xam nga Viviane dafa aji Ouza mi ngi fii xam nga problème mooy <laughs> ah. <laughs> c'est vrai que li nga ma laaj ñu lu am solo la ah. Viviane dafa neex liggéeyal mm-hmm. Viviane dafa neex a liggéeyal ndax la man yóbbu woon naa ko Amsterdam Hollande en 2003 mm-hmm. dëgg la ma fa concert mm-hmm.

dafa xew aussi. noonu mm. moom sax dafa mës a xew. Mm-hmm. mun na way elle a du talent. Mm. xam nga te tamit aussi nag wax dëgg yàlla xale yi bëgg nañ ko. Mm-hmm. Mm. même France ak Italie <laughs> et eh, grand mais que est-ce que man est-ce que leen yóbbu parce que influenceur yi tamit si liy jaay si liy jaay programme seen bokk. non mais mais ñu ngi ñu ngi siy xalaat ñu ngi si ñu ngi siy wax. Mm-hmm. Ah, xool ba xam ñun daal li ñu bëgg rek mooy mbir bi nu mu gën a yaatoo rek gën a baax. donc les portes sont ouvertes. bëgg naa nga daggal billet euh, Ouzin xaw ma kii euh, Pawlish mu dem. Pawlish. Mhm. ah d'accord. Yo après nga wax ma nga yónnee ma numéro téléphone Paulis, man ma ah. woo ko waxtaan ak ah Paulis moom bëgg naa mu dem. Ah. parce que man suma ma jeex rek dama koy bëgg di non mais sa xarit la nag. <laughs> dama koy bëgg di ko gis. ah mais c'est bien. waaw Inshallah. allah fay. mais kontaan naa mon frère. Aha. Ah, inshallah. mais du courage hein. Mhm. Mhm. mais gars yi mi ngi nii man na ñëw inshallah allah une semaine communiquer, inshallah. allah.